على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائي عمنا asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigal xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour Serigne Maodo Sy Dabakh le prince des poètes Serigne Babacar Sy Abdou Aziz le recteur de l'université Kër Maodo et tout la famille de maam Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu Tafsir Maodo Gaye moo am mbégte di leen yëgal tàkkusaan bu mag bi muy amal samedi 2 mars ca géej rond rompoint Canada mu nag ci delloo njukkal ki gën ñëpp di Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di ci sargal Serigne Makhtar Sylla bés bi kan mooy def animation bi ñu ne Alhaaji Sambou invité d'honneur yi mu ni ma Serigne Ahmed Fall ak Tidjani Tafsir Abdourahmane Gaye oustaz Pape Makumba Anne oustaz Modou Fall Chérif Baba Sow Cheikh Omar Kane maam Abdou Aziz Sy maam Ousmane Sy ibnu al Khalifa Serigne Thierno Sy Papa Makhtar Sylla Oustaz Massila Kane Serigne Maodo Guèye Serigne Jibril Niang mu Cheikhu Tidiane Serigne Askia Touré bi ñu ngi ko darajaale Badara Ndoye Dabax Immobilier Dayra Xayru wal Minnat Minnatu Dayra Abrar Dayra Ixsaan Dayra Senelec Dayra Ixsaan 2 Dayra Sopp Dabax Dayra Muxtafina sant yàlla soppay Abdou Aziz Ndiaye daayira sopp Serigne suuf si borom daara ji daayira sopp Serigne Babacar si géejewaay soppay Pape Ndaraw Diop daayira Muxsiniina wal Muxsinaati association sopp dabaax bu maam Ousmane si dabaax Alxaaji Mboodu Men Diop monsieur le maire Jara oustaz Ali bu Serigne Mame Malick si waaye bés bi ñu ndayale ko Adja Ameth Thioub Adja Mati Ndiaye madame Lam soxna Yaxara Tunkara soxna Astu Idda Ngor mbokk yi tafsir Abdourahmane Gaye bëgg lool Seyduna Muhammad di taalibe Serigne Maodo Sy Dabakh moo am mbégte di leen fàttali bësam bi ñu jàpp ko samedi 2 mars 2024 mu ci delloo njukkal ki gën ñëpp di Seyduna Muhammad waaye di ci sargal sëriñam Maxtaar Silla animation bi ñu ni Alxaaji Sambou fan la mbokk yi ñu ni Géejawaay rond-point Canada ku ci bëgg am lu la leer mën nga woote ci 78 262 69 21 عن الافكار اسماء شيخ الخليفه سيد بابا كريم جود رسول الله ياتي محدكم اي سيد بابا تم دنا ديك سنتريان ينتهي